xaatim nañ tey benn partenariat bu am solo diggante agence couverture maladie universelle ak euh, Proval projet Proval bi nga xam ne projet la projet agricole la bi nga xam ne couvrir euh, day intervenir ci juróom-ñett région loolu am na solo ci ñett at yi di ñëw euh, danañu mun a assurer vingt mille personnes et soixante mille enfants donc loolu am na solo yaakaar naa ni aussi ñun ci suñu bopp. suñu cible ci suñu mission yi ñu jox dañu nañu couvrir secteur informel bi ak monde rural donc suñu partenaire euh, privilégié dafa waroon na nekk waa ministère de l' agriculture donc euh, ñu ngi rafetlu en tout cas que séance bi di am ci teewaayu aussi euh, ministre bi ci boppam loolu day wane ni naka la ministère agriculture téye mbir mi dëgg la xam nañ ko pour nga am productivité il faut nga wér balaa nga ne naam ne fa donc euh, nit ñi suñu wérul duñu mën a liggéey suñu mënul liggéey duñu mën a produire suñu mënul produire nag loolu problème la moo tax sax gis nañu ñu ngi koy coubler ak euh, beneen côté bi maanaam assurance agricole bi donc euh, pour man yaakaar naa ni on pouvait pas mënuñu woon am beneen initiative bu ko gën ñu ngi am njort ni danañu def liggéey bi ni mu waree ba nit ñi mun ko constater rafetlu ko ñu mun ci roy pour que ñu couvrir population euh, monde rural bi yëpp yaakaar naa ni loolu lu am solo la ñu ngi wax nañ ministre bi ñaan nañ ko moom ci boppam jël na engagement dana fexee ba su mbir mi awee yoon mu yaatal ko daanaka mun nañ wax ni euh, ñaari sénégalais yoo lim kenn ki déjà mu ngi am couverture maladie universelle wala ak lu topp euh, di fàttali aussi que population bi day yokk donc loolu mu tekki que malgré effort yi ñuy def gis nañu dañu war a def yeneen jéego pour que ñu mun a atteindre soixante quinze pour cent yi ñuy wax ndaxte dañuy fexe war a fexe ba dabu population bi ni muy progresser donc am cinquante trois pour cent loolu am na solo mu ngi tekki ni rek euh, su fekkee ni population dañ ko fixé woon mun na am dépassé nañu euh, objectif bi ñu ñu waxoon bu yàgg mais liggéey bi mooy demee noonu euh, defe naa résultat bi baax na li ci des rek mooy ñu yokk jéego yi comme comme initiative bu mel ni suñ koy def yaakaar naa léegi ñu couvrir Sénégalais yëpp.